Assalamu à euh, toute la diaspora sénégalaise euh, ñu ngi leen di nuyu ñëpp ku ci nekk seen tur seen sant Mohamed Diakhaté di un sénégalais qui vit à Atlanta Georgia euh, donc nous ngi ñëw andi leen quelques conseils rek yi nga xam te ni moom laay jox suñu doom yi wax les jeunes yi sont au Sénégal ñu gis vraiment chômage bi bëri na délinquance et bëri na te yaakaar naa ne yéen avenir du Sénégal donc tey yéen a changer cette opportunité ndax euh, gis nañu paresse bu bëri gis nañu drogue bu bëri yoo xam jeunes yaa ngi koy utiliser te euh, yaakaar ni situation boo leen am yéen seen bopp yéen rek yéen ci mën a donc damay ñëw wax tout rek sama parcours ñun fu ñu jaar un homme ne doit jamais euh, se décourager parce qu'une personne découragée ne réussit jamais man je suis de Thiès foofu laa màggee maa ngi quand j'étais jeune mes parents n'avaient pas les moyens pour ma jàng ma continuer def sama donc ma bàyyi ma bàyyi en classe de troisième j'étais à un mois de l'examen mais comme amu woon moyen pour égaler, donc noonu laa bàyyee sama jàng noonu laa ko perte mënu moon dem benn école pour ñu jël donc ma commencé liguer à bas âge j'avais seulement 17 ans mais dama naa xool sama yaay di ko comme mon père était en France son papa français la donc man maa fa nekkoon ak sama yaay ak sama yeneen frère ak donc 17 ans laa am commencé dem di wuti liggéey di ñefe li may ñefe di nekk régie des semaines de fer j'étais jeune euh, boobu ñu ngi doon fay ça ay 200 francs à l'heure ak gis lu mu méttee ma liggéey noonu dem ba ñefe ba après ma ñëw di liggéey ci benn boîte de nuit boo xam te ni euh, sama jëkkër sœur moo ko doon moo ko moo ko yoroon moo ko doon gérer donc ma liggéey fa presque ay 9 ans j' étais très jeune aussi 21 ans laa liggéey fa ba am 29 ans ci laa ñëwee après Amérique fii donc ci ñefe yooyu noonu. ci lañu ñu créé suñu bopp opportunité ba tay ni ñëw fi alhamdullilah on a réussi ñu ngi sant yalla bu baax a baax te loolu lépp li ko waral rek mooy am ambition am jom am full, am fayda am surtout euh, vision nit aussi da ngay am vision tamit euh, gëm sa bopp am imagination ndax li américain di wax the sky is the limit voilà bul yemale sa bopp tey dama naan réussite

donc dama naan jeunes yi euh, nit da ngay ambition voilà da ngay am ambition tey bu la sa euh, dàll bàyyi jotee donc li ko war tey yow war na la mooy euh, vice versa aussi si jigéen donc tey boo xoolee tey nga nekk sa kër papa fayoo ndox fayoo courant fayoo appartement fayoo dar. donc munoo xam yenn responsabilité yi man li ma rek mooy inspiration foofu lay njëkk a commencé ah man de ma jaar boog laa expliqué donc nga toog sa biir néeg nga nekk sa kër papa ak sa kër yaay joxe fa dépense joxe fa dara mais au moins jëmal góorgóorlu fekkee yaa ngi jàng jàngal mais ci biir jàng boobu tamit aussi mën nga wuti dara loo xam te yaa ngi koy def donc nga commencé bëgg sa bopp déjà jëndal sa ay lal jëndal sa bopp euh, euh, euh, matelas jëndal sa bopp télé magnétophone yooyu mooy yu ndaw yoo xam te ñun loolu lañ doon def loolu nga xool nga xam ne lii sa njaq ma la ko jox sa papa jox la ko sa yaay ko donc yooyu réussite foofu la njëkk a commencé donc loolu dina la pousser ba nga génn sa kër papa nga ne ok léegi dama bëgg jël responsabilité bu leen daw responsabilité parce que tant que yaa ngi daw responsabilité doo egg fi nga bëgg egg donc nga génn foofu boo demee nga loué sa benn néeg nga commencé noonu la ñefe di commencé di am nga jël responsabilité commencé di liggéey yor sa bopp di dimbale sa papa ak sa yaay donc di nga gis yàlla dana la fekk si ci loolu waaw parce que munoo xam doole bi nga am tant que demaloo sa bopp te loolu non tay bu fekkee tay da nga tourner mu métti nga bëgg ko blâmer le gouvernement wala nga bëgg ko blâmer euh, nga bëgg tourner sa bop di utiliser drogue mais danaka da ngay surux parce que drogue yëpp xam na lu lay def mo xam yamba la wala nan sa ambition yëpp ay dik donc ñun yeen jeune yi yéen a moytu loolu tay yeen yéen ay avenir euh euh du Sénégal donc ñun ci yeen lañ yaakaar ñun presque déjà ñu ngi jëm mak donc lu ñu desee bëritul donc ñun suñu wall def nañ ko donc yeen aussi yéen a def sel wàll waaw

nit lan la soxla rek moy physical strength moy doole bo amé doole rek am nga lepp di nga mën réussir donc am ngeen doole vous êtes jeune bu len ko yaakaar ci kenn jóg leen ngeen ñefe ngeen ñefal sen bop xam nga bo len ñefalee sen bop rek inshallah yalla dinañ ci fekk donc message bi la ne woon dinaa ko partager avec toute la diaspora sénégalaise inshallah donc euh, ñu ngi leen di ñaanal di leen gëna encourager aussi tamit pour ngeen gëna fash jom am courage te xamné rek euh, yalla jéxul million yo fi gis wala kër yu rafet yoo fi gis wala business boo fi nekk boo fi gis jinne moomu ko malaaka moo ko moomu ko nit a ko moom te da koo liggéey donc lépp lu mu def ba am ko yow mën nga ko am ñun tey lu ñu ñefe ba ñëw Amérique fii wala même bu doon sax beneen dëkk yi tamit aussi mun ngeen ñefe ba am ko mais da di gëm seen bopp tubaab bi leen rek lañu ñu ëpp de mooy dañoo gën a ëpp jom amul mag amul xale fii dañu dem ba nekk mag dañuy kon ne di ñafe donc li ma leen di wax rek mooy ñefe te ñefe te ca ba muy ba ngay nekk xale ci la gën a soxlaa donc conseil yii laa am yi am te ne moom jox jeunes yi di leen nag ngeen jóg régler seen situation da ngeen di wut liggéey boo leen amee xaral xaral xara da ngeen ci xarañ boo amulee liggéey ngeen ut opportunité mun ngeen créer opportunité Il y a tellement de choses yoo xam ne doomu aadama mën na ko def donc ngeen def ko à partir de zéro ba ngeen dem ba tey ngeen nekk un millionnaire wala milliardaire waaw donc gis nañ fi ay exemple euh Martin euh, kii nu mu ci sax euh, Diallo Pit nga xam ne ay picc la doon jaay ba nek ba réussir gis nañ fi ay euh McDonald nga xamante ni famille la boo xamante lu tout lañ commencé ak ki nga KFC nga xam ay ginaar rek la doon jaay di saf donc gis nga ko yu ndaw yoyu donc nit ki bo gëmee sa bop rek ak talent bo mën ci am soko ko donc mën nga ci réussir donc sa euh, réussite yow rek ya ci mën a génn donc a ngi déglu sama message donc na nga copp nga jóg régler sa situation donc ñu ngi déjà di le voyage waa Sénégal yëpp ñu ngi leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay man la seen mbokk Mohamed depuis Atlanta Georgia alaikum.